merci monsieur le président ministre di wax ni monsieur le ministre bu ne xam na ni ministre bu la jox bu joxe Sénégal dox Sénégal li ko war a doxal lépp mi ngi aju si ministère malheureusement nag yow mi ngi ko que tey boo xoolee rek ci li nga xam mooy seen programme bi ngeen yore. programme Sénégal émergent ci deuxième pilier bi ci ngeen def li nga xamante ne mooy développement industriel bâtiment industriel pour que maanaam bi war a suqali ak agriculture pour doxal Sénégal malheureusement du ko leen privé boo jëlee tey ci biir si bi rek sama xarit bi sax dafa juum mais bi si 7000 milliards ñu ngi leen jox 16 milliards la leen si jox milliards naa ne amu leen vision boo xamante ne tey bu leer la pour li nga xamante ne mooy monsieur le ministre fukki at ñaari Macky Sall yi Touba zéro amul benn ak ak benn programme bu sot boo xamante ni ci ministère bii ñu la yor teg nga ko pour Touba mën a génn si jafe-jafe yooyu nekk te ku ne xam ne Touba amul géej amul ay usine la ñuy def mooy jaay la ñuy te jàppoon am na ay pôle yoo xam ne programme depuis bi ñu fi nekkee ba fi may wax a yow chaque année ñu ne dañ fa def nangam pôle bi fii lay toll ñu ngi si financement yi ñu ngi si affaire suuf si ma kon jàpp naa ni programme bi moom Touba boolewul leen loolu nag moo lay ni la bu ngeen gisee waa Touba nanguwul leen a adhéré seen politique nanguwul leen a wateel mooy amu leen yéene bu rafet jëm ko si xale yi pour ñu jóge si jafe-jafe yi ñuy dund parce tey Touba ñun suñu programme bi ñu yore 155 dañu woon bu ñu yàlla maye njëriñu 2024 dana def maanaam 4 pôles Touba benn bi nga xam moo jógee ne côté Ndindi bi génne côté maanaam Touba Fall monsieur le ministre malheureusement amu leen xam-xam boobu pour mën ko defal aw fas boo ko yoree jafal ko ba mu rek jox ko ku mu mënti dawal subaa tam da lay daan malheureusement loolu mooy li nga xam wala dal deetu ministre bi la jox wax dëgg yàlla mënuloo ko monsieur ministre bu ngeen gisee ñu baree bari mere Macky Sall sa classe bi bokk na si man 2010 maa yow ñoo doon ànd nga dugg sama oto nga nekk benn pression may ànd ak yow 2010 2009 nga nekk sama xarit ma la daa dimbale tey jii may wax yi 2024 bis bi ñu joxoon maanaam 2023 bii bis bi la mujj joxaat ma gis maanaam ci fonds Covid bi ñu ni Moustapha Diop jël na milliard ci xaalis fonds bi 1 milliard franc CFA yoo xam ne détournement la ci fonds Covid mais bëgg naa si ay leeral parce que bi ñu si waxee man waxuma Cour des comptes moo wax moo ne ministère bi nga yore am na maanaam 100 1 milliard yu si génn wax xam bis bi yàlla sàkk 100 millions nga doon def sec te loolu Moustapha Ba wax na ko yow mii nee nga loolu yaa ko def. yaa ko def nga wax parce que li tax mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ñi nga xam ne mooy fournisseurs yi daaw ñu nangoo jëlee euh, sec espèce la nangoo jël mais tey boo jëlee si li nga xam ne moo ñu tënk muy li nga xamante ni mooy marché public dafay tere fay espèce xam nga loolu Moustapha xam nga ko man xam naa ko jël ko tey bu fekkoon réew mu normal la nekk 2024 bii doo nekkaat ministre 2023 ba ki nopp danaa waroon jàppale leen loolu mooy yoon ndax ku lekk xaalisu askan wi waruloo nekk ministre de la république te yow yaa xam nga li tax nga bañ a ànd ak Amadou Ba xam nga ko parce que Amadou Ba xam ne bu gañee réew mi leer na ni dana nga que Amadou Ba tey ji dafa ñëw Louga nga daw ko bàyyi ko ma dem kër Amadou Sakhir Mbaye ñu ko fa lu nekk te yaa ngi ne nangoo ko parrainé am beneen candidat boo xamante ni xëy nit ñi xam na xamuñu ko te xam naa ne candidat boobu noonu kon jàpp naa loolu moo lay wan rek li am solo te am mooy nit ki la ngay a dëgër parce que Macky Sall nag defal na lu nekk parce que bi nga xamante ni avant Macky xam na li nga nekkoon Macky tey loo am loo man loo mën a def Macky Sall moo la ko yóbbu kon Macky Sall bu tànn seen candidat ak lu mu naqar naqari war ngaa peut-être si candidat boo nga xamante ni mooy Amadou Ba mais malheureusement ah, ka Amadou Ba nag candidat la boo xamante ni amul amul sens parce que te amul sens mooy bu fekkente ne ni tey mi ngi jàkkaarloo ku mel ni man jàkkaarloo ku mel ni Bassirou Diomaye Faye na yaakaar naa ne a mais li am solo ñun am nañ programme bu baax ci li nga xam mooy développe ministère bi bu ñu yàlla mayee ñu gagné réew mi 2024 incha allah dañuy audité ministère bi jéem a xool li nga xamante ñoo ñu sàcc àllu réew mi teg ci yoon ba pare jéem a gor yu set yi su mel ni Moustapha mii nga xamante ni jikkoom rafet na ñëpp xam na ni liggéey kat la te mi ngi jaay la réew mi si yoon kenn mosu ko épingalé waaye yow nag da la